kon nag Abdoulaye Bopp lañ ci mhm. àndal Abdoulaye mel dañ koy tàmbalee ak Walfadjri quotidien mangoog euh, Walfadjri quotidien lam ñoo dégtal euh, njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay ak euh, gouvernement bi lëlu nañu séminaire la ñuy amal ngir xool naka la ñu fas yéene sooboo ci liggéey bi Bassirou Diomaye fay nag mel ni ku yàkkamte lool ndax bëgg naa jublu ci soxlay askan wi saafara jafe-jafe Sénégal bokk na ci soññ na ñaax na gouvernement bi ngir ñu teer a farlu ci liggéey bi lépp luy dossier ñu mun ko càmbar ca na mu gën a gaawee yéenekaay bi di Walf Quotidien ne mbir yi bëgg na mu gaaw lool waaye nag du yombee noonu bu ñu sukkandikoo ci Walf euh, Quotidien ñu ñëw ci réew mi quotidien réew mi quotidien mu ngi ñuy dégtal corniche ouest bu ndakaaru daanaka bépp liggéey ak chantier ga fa ne woon président Bassirou Diomaye Faye jot naa jël dogal dakkal ko ci saa si nañu taxawal lépp xoolaat euh, dossier corniche bi euh, bu ñu sukkandikoo ci euh, Pierre Atepa Goudiaby moo joxe googule xibaar leneen fës yi tamit ci réew mi quotidien bokk na ci maître Massokhna kan xam le ne lu aju ci njëgu dundu gi nguur gi de ci war a jublu fexe ba itamit saafara jafe-jafe wàllu transport accident bëri nañu bakkan yaa ngi rot te loolee nguur gi war na cee jublu ngir xool naka lay ñoŋale eh, transport bi. le quotidien yéen kaay. le quotidien mu ngi ñuy dégtal eh, tabaxum littoral yi bokk na ci corniche bu Ndakaaru Atepa moom jot na cee indi leeral rafetlu dogal bi ci président Bassirou Diomaye Faye eh, jël ci li nga xamante ne mooy bépp tabax gañ fa jot samp bëgg nañu xool la ko samp ak ñamu ak namu sampo loolee dossier buñ ko defee rek corniche googee mun naa ci mun cee gis seen bopp. yéenekaay bi di euh, le quotidien moo ñu ko yëggee Dakar bu Medina Gounass doon na célébrer yoonu jullit ñi ay ñaan lañ fa amal waaye nag ci tàngoor gu méttee métti euh, waa Dakar jot nañoo rafetlu euh, dogal ak taxawaayu nguur gi ci googu lépp ndajeb diine. critique yéene kaay. Euh, critique mu ngi ñuy dégtal ana naka la fas yéene yore réew mi ci doxalin gu mucc ayib loolee bokk na ci la ñuy waxtaanee ci seen séminaire moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay euh, daanaka dënk na ñaar ba ñett ay ministre am gouvernement bi euh, xamal na leen ne daal nañu jublu ci ñoŋal doxalin gi waaye nag wàcce seen bopp jege askan wi compétence maanaam mënin bëgg na ko séentu ci ñoom ñu fexe ba lañ leen dënk ak lañ leen fal ñu matal ko ci fan yu bëree bëri mu ngi ci yéen a Euh, critique source a euh, source a génnagul ci googu lépp séminaire bokk na ci li nga xamante ne mooy rupture euh, gam woote Bassirou Diomaye Faye président bi xam ne ne rupture nag nañ ko tàmbale ci suñu doxalinu liggéey wax na ko bokk na ci tamit dellu soit na wax ne ci jamono ji sas wi rey na te nguur gi da ca war a jublu ci liggéey ca na mu gën a gaawee liggéey googee anam yañ ko war a defee Ousmane ko wax na ci premier ministre xam ne amul benn école gu ñuy jàngale ministre bokk na ci ministre yi ca def Euh, ci liggéey bi nga xamante ne moom la euh, sénégalais yi di séntu ci ñoom. las yéene kay. las ne bu ñu yàbboo fagaru xam ne mun nañoo séntu ab plainte euh, gu tegu ci ndoddu njiitu réew ma woon di Macky Sall yéene kaa bi ne kenn ci ay avocat Ousmane Sonko ma ngay nas ay pexeem ngir mun a clamer fu mbaxana doone benn njiitu réew ma woon Macky Sall ndax dafa war askan wi doxalinam moo jaarul ci yoon maître Ciré Clédor lii ne surtout weer yu mujj ci nguuram nam ca doxale moo jaaduwul professeur Ndiak journaliste jàpp ne topp njiitu réew mi euh, mun naa doon lu jafe lool dossier gi ni mel mun naa tagga tembe mu ngi ci yéen a bi di réew mi euh, di las l'info yéen a l'info Mouhamadou Bité mu ngi ñu dégtal lu aju ci société civile bu Sénégal euh, sàkku nañ ci Bassirou Diomaye fay mu baral liggéey bi waaye nag sàkku nañu mu jëfee lañu jotoon na waxtaane ngir xool naka la ñuy saytoo Sénégal ci anam yi génn bokk na ci assise national ya woon bëgg nañu ñu amal assise jëm ci wàllub yoon tënku ci seeni waaye nag xeex corruption guerre ñu ngi koy xaar ci nguur gi fi ne fraude fiscale bi ñu ngi xaar ak yeneen ak yeneen yéen a bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk moom l'info. Euh, a mu ngi ñuy publication mu ñeel rapport yi fi jotoon a jaar ci OFNAC Birame bu Forum Civil jàpp ne war ñoo yem rek ci OFNAC Cour des comptes IGE nañu teg seen rapport ci euh, penc mi ci taabal ji ñu mun koo xool ñëpp xamandoo ko euh, xam ñi jalgati ak ñi luubal alalu réew mi. yi ñu xam leen euh, ci yooyu le rapports IGE ak euh, Cour des comptes. les échos yéen les échos mu ngi ñuy dégtal Barthélémy Diaz maire bu Ndakaaru mu ngi sàkku diisoo waxtaan euh, ak président Bassirou ay fay dina bind lettre d'audience goo xamante ne dina ko ko yónnee ngir njiitu réew mi mun ko dalal ñu mun a waxtaanee ay projet mairie bu Ndakaaru ville de Dakar audience ga mu amaloon ak njiitu réew mi Macky Sall audience googee nag la bëgg a amal ak njiitu réew mi fi tey di Bassirou Diomaye Faye. turbine mu ñu dégtal lu aju ci mbootaayu xeet yi Nations Unies ndax Sénégal dafa ne ci danger déet ndax bu ñu demee tey ba ONU yebal ab euh, hémisphère euh, spécial euh, fii ci Ndakaaru lam ca jublu lu ndax saay bu euh, ONU taxawee nii yebal euh, kenn ci ay ñoñam euh, ci yenn ci réew yi day fekk réew moom la ne ci crise yenn kaa bi di turbine bëgg a xam ana crise bi fi ne ba tax ONU di bàyyi xel réewum Sénégal. sunu làmb suñu làmb mu xamadu bi tey arène bi xumboon na lool démb ci clave bi bokk na ci caatu yaraax. Euh, fësal na boppam Doudou Sané moom euh, door kawo euh, Garga 2 ba mu daano beneen kawo goo xamante ne jot nañ ko nemmeeku ci arène bi demb Alioune Seye 2 moo daan Coins de ko dóor mu daanu beneen bëre beneen làmb ci googule arène nationale Jacob Balde daan na Albouri jël gu set wecc yéen kaabi di suñu lamb di ñu xamal ne kalaf bi démb mënin feeña bëre feeña ci arène nationale. dóor mu daanu moom doole la wala laapataake la. ñaar ndax euh, doole mooy dóor. Mhm. làppataak yi tamit euh, day dooleel dóor. day dooleel ah, mu mel ni yéenekaay yu ci bëri nag ñu ngi wax ay dogal yoo xam ne moom président Bassirou Diomaye Faye jël na ko. jël na ko dogal yi bari lool ba tax na ñu ngi diisoo xool naka la ñuy mattale yooyu le dogal jombul ci seen séminaire bi nguur gi dina mun a jublu ci saa si saa si ci daar daar ci liggéey bi ndax def leen a dënk ay ndenkaane ñaar ba ñett ba ñeenti ndenkaane. ñu mun a farlu ci liggéeyal askan wi. li leer ba leer moom mooy jamono ji moom euh, réewum Sénégal oto bu nekk point mort la. waaw euh, ñu nekk ci mécaniciens yi nekk ci di xool. Mhm. Ah, ñuy def entretien yi laata muy départ. Ah, kon rof premier jot na de ndax fi mu ne moom lépp na tekk. Ah? mu toll ni daal xam naa ne nee na tekk euh, tekkaaral gi nag baaxut. ndax bëgg nañu cin li tegu. Mhm. ba ñu xool la ñuy sóor mu doon ngeneel ci njaboot ki doon ngeneel ci réew. nañu am yaakaar rek ci ñaari mécaniciens yi ko seq yi seq oto bi muy président Bassirou Diomaye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 vingt 862 vingt 24